ndeysaan 100 kilo la 100 kilo la diggante ordinateur ak nga xam ne mooy Sayer Ndama Sayer Ndama moo ngembo Ndama moo gàtt ordinateur moo sut nee naa la Sayer Ndama moo ñu féete sunu ndeyjoor waaw waaw ordinateur féete ñu sunu càmmoñ wéyalal wéy nee naa la ki nga xam ne moo di Sayer Ndama al la ñëw 100 kilo maa la wax loolu ordinateur ñëw Fatick 100 kilo nee naa la tarkala masala Seeri Ndaama dëkkam soriwul fii l'enfant Séri da Jokkul waaw waaw ordinateur l'enfant Séri da Ñaaxar ndeysaan diggante Fatick la ak Kaffrine. général Malika a ngi noonu. ndeysaan xale baa ngi noonu. ñu ngi ci deuxième demi-finale diggante. sama papa Moustapha Gueye topp na ko. mooy Sayer Ndama. yaa ngi ndeysaan ordinateur Sayer Ndama nee naa la Sayer Ndama soriwul fii jokkul la dëkk. jokkul si Kaolack la bokk. Sayer Ndama. mii. xale la ta day dem. waaye ordinateur tamit mag mu am ñam la mu jógee ba Ñaaxar dëkk Fatick région de la teewal. kooku mooy Ndogoy Fall maa la Eh, jaajëf day neex naa la Basiru waaw waaw ordi dem na ñu ordi jël na ko saa waay daw na wër ordi nga koy jël waaw jël na ko bañ waaw ma xool nu mu koy def takk na ko eh ordi ordi. génn nañ saako yi wala déet. ordi jëlal 100 kilos yi 2019. ndax tamit amaatam déet. waaw waaw ndax rajo xe taxaw na final. ñu xool Sayer Dame ak ordinateur kuy génn waaw waaw daan na ko ndeysaan. daan na ko ordinateur Radiakhé. ordinateur waaw waaw. ordinateur dem na final. ki koy bëree moo di ki nga xam mooy Sayer Dame ak Sele Mele deuxième demi finale baa nga noonu fils de Badli.